ah sama gars yi xam ngeen ni vendredi yi ren herbe épice moo aaye waaw kay fii ci Alphie Cuisine ñu dem xool recette du jour bi sama gars yi ay ca waaw kay. ay ca sama gars yi ci lu ngeen nekk ba yéen a ngi toog wala ngeen taxaw. <laughs> ak nu mu ci mënti demee daal tey ginaar moo ñëw waaw ren herbe épice recette vendredi yi waaw kay euh, dafay wàcc ci Alphie Cuisine tey ñu dem wuti jëli sunu lakk ginaar jël sunu piquante fumé épices euh, sauce dina ñëw euh, waaw gerte gaa ngi noonu dinaa defar maafe tey maafe ginaar la ñuy defar waaw mu nekk benn classique boo xamante ni euh, bi ma ko xamee ak léegi yàggul bi ma commencé di defar maafe ginaar ak léegi yàggul waaye neex na de yii saf na man moom dootuma ko bàyyi su ma amul yàpp xar moom maafe ginaar rek waaw te nag dagat naa samay poivron comme Espagne moom boo reetaanee reetaan bu neex sax ñu may la poivron bu rouge beeg bu verte bi ak soble laaj samay légumes tarkal la waaw ñoom chou pommé chou fleur euh, patas ak euh, kaani euh, ak jaxato déggal kànja kànja man dama koy bëgg ci maafe bàyyi ko fa ba mu tas nga xam nga dafay da ngay am gu mel ni kuy lekk maafe kànja waaw ñànkatang express man damay sebet def ko ci pool bi def ko ci marmit bi def ci ndox def dëwlin épice su légume bi bàyyi ba mu baax ba ndox bi yëpp jeex ma tëj wàññi gaz bi man noonu laay toggee ñànkatan du ma du ma tay euh, di perte temps ah, ok euh, jamono bi dafa dox waaw jigéen ñi di di di entreprendre di liggéey tar wax dëgg yàlla war nañu soppi doxalin waaw kay bañ a yàgg ci waañ bi waaw lépp jaar yoon rek xam nga ñànkatan moom wax dëgg yàlla bu fekkee am nga jot mën nga fa nekk di sebet ak di tey waaye fii moom jëlal nga sebet rek def ko ci kii bi waaw yaa ma yaa ma gën a xam léegi nag ñu mariner suñu ginaar lakk ginaar moom ku ko xam xam ne noo seulement goût bi muy indi ci ginaar doy na waar waaye couleur ba ñuy soxla ci ginaar pour mu doore lakk ginaar bi moo koy def booy defar say poulet grillé grillé moo ci baax sa poulet rôti euh, moo ci gën waaw sa giri sa sa ginaar façon façon barbecue tamit waaw mi ngi noonu moo ci gën nga sànni sa tuuti xorom def sa tuuti poobar voilà mariner ko du am nokkos euh, épice nokkos bi laa ci def voilà daal di koy mariner euh, tàmbali ko saaf parce que léeg-léeg nga def nokkos marine ginaar gi ba mu très bien saaf ko euh, marinade bi yëpp xooñ waaw koñ kole ci cin bi léegi boo jëlee sa ren herbe épice bi nii daal di ko ci jaxase mélanger waaw koñ mélanger ko ba mu très bien tàngal sa dëwlin soxlawul muy sens waaw nga ne ko ci cas maa la wax loolu non seulement dina doore euh, du collé ba pare da ngay am Euh, poulet boo xamante ni boo gëmul yàlla sax danga koy lekk avant maafe di ñor waaw comme ginaar gu ndaw la waaw moom boo ko saafee dafay mel ni lu ñor waaye ba léegi ñor bi des na parce que dama koy tëmbalaat ci biir euh, sauce bi ma ñëw ci nokkos bi laaj waaw ma xolli naa sama laaj bu doy def poivron rouge poivron vert def soble euh, bu la neexee mën nga ci taal sànni tuuti céleri waaw mi ngi noonu ngay gis oignon vert ma daal di jël nag mixé voilà Euh, sama épice su nokkos bi laa ci def moo tax nga gis couleur bu marron bi épice su nokkos bi ma koy def ndekee filmé wul waaye léegi nag euh, ginaar gi bu ñu bu ñu bàyyee rek ñu tourné ko ndax léeg-léeg dañuy andi résistance mel ni ku nekk ci kuy opposé opposé wu waaw kay bu ñu bàyyee jàmm rek ñu tourné leen incha allah waaw nag suñu ko fa bàyyee waaw mu jël couleur def dooreem waaw fekkanteeg dëwlin bi euh, ba nga xamante ni lépp doore nag ñu seppi. waaw léegi nag euh, maafe moom bëri na bëri na façon am na ñoo xam ne dañuy ñulug seen maafe am na ñoo xamante ne euh, bu ñu rosee seen tomate euh, gerte gi dañuy bàyyi ba ñu ñulug ñu def ci seen tigadege waaw am na man nag sama ku nekk ak sa ni ngay toggee waaw man maa jël sama li desoon ci nokkos comme dama nokkos bi dafa bëri ma jël soble beeg tuuti poivron bi desoon ak laurier bi russi ko ba pare jël sama nokkos sànni ci biir ok bu ma sànnee ci biir bàyyi tuuti mu doore ma jël sama gerte def ko ci ndax man sama yaay bi togg maa dafay def gerte gi léegi la ko ciy def mais am na nag ñoo xam ne dañuy bàyyi ba ñu ñulug ba pare ñu soog a cee def gerte yoon yee bëri yow boo jël chemin boo jël rek baax na waaw léegi tomate bi tomate fraîche ak tomate loqati moom laa jël moom tamit def ko ci bàyyi ba mu dog voilà ku nekk ak ni ngay toggee sa maafe waaw l'essentiel mooy nga yàq lu neex yàq lu saf utiliser ren herbe épice waaw am lu gën maa la wax lii gerte gaa ngi noonu di dugg waaw gerte gaa ngi noonu di dugg comme moom dafay gaaw dafay gaaw a jàpp danga koy surveiller waaw yëngal donc bu ñu yëngalee nag euh, ndox bi ñuy ñuligee nekk suñu wet waaw kañ ba ñu nekkee xale sama yaay daf ñu daan euh, wax li ñuy ñuligee nañ ko teel a tànq teg ko ci watu cin bi waaw nga xamante ne sa cin du la rëcc et puis bu ñuy togg ñuy toog ci côté waañ bi bu ko defee doo togg togg njaaloo loo togg dafay neex voilà doo teg sa cin rek ne ci tiktok bi baa nga ne ci youtube tu youtube bi sa ñam di xëm waaw koy nañ bàyyi yooyu jéeg ju ndaw ji laay waxal di ayoo ak ñaareel yi fumier bi waa koñ moom moment bi li ciy ñëw dina ci indi cas épice soos xam ngeen ni am nga am na ci ren heure bi ren heure bi épice vingt sorte sorte la defar benn bokk ceek sa morom vingt paquet nga am am na nag sama sama suiveur yoo xamante ni vingt yëpp la ñu jënd waa parce que bëgguñu ñu nettali leen benn goût waaw noonu ngeen di def bu ngeen wootee ci numéro téléphone yi jël paquet bi nga xamante ne 20 épices yi moo ci nekk mën nga toog benn diiru 3 wala 6 mois dootoo jënd épices ok euh, surtout ñi nekk Europe nga xamante ne ñoom suñu wootee 20 yëpp la ñuy bëgg ñu livrer leen. bu waa Touba doxantu leen ngeen dem Elidia Elidia bu ngeen fa demee euh, ren herbe épices da ngeen koy am si njëg bu xéewale waaw ñoom li ñuy jaayee moo gën a xéewale waa Mbàkke mën nañ ci profito waaw waa waa Touba ak waa Diourbel voilà euh, Touba Tanzil en face station Clim Oil bi su ngeen fa demee di ngeen fa fekk Ren Herbes Épices waaye Ely tam mi ngi ñëw dakaar pour mën leen andil seen point de vente pour ngeen mën a dem di jënd seen Ren Herbes Épices waaye ba tey bu ngeen wootee dañ leen di andil seen livraison tombé na ginaar gi di wàcc noonu ci biir soos bi déggal ma loolu waaw koy yëngal ko yëngalu chef yëngalu chef ndànk nga koy nga koy yëngal moment bi tëj sa gaz wàññi sa sa sa sa sa sa wàññi sa gaz waaw le temps muy ñëw dikkagul des na euh, léegi bu baax boobu ñu naan yaa ngi baax baaxagul ndax diw bi dafa war a xelli waaw man nag euh, tamit bëgguma dawlin bu bëri ci maafe am na ñoo xam ne seen maafe dafay dang am na ñoo xam ne seen maafe dafay woyof am na ñoo xamante ne seen maafe dañ dañ ci sànni tuuti géej am na ñoo xamante ne bu leen neexee sax def ci yéet <laughs> des fois nga gis ay discussion ci ci lan moo war a dem ci lii wala lan moo war a dem ci lële euh, des fois nit ñi dañ ci dañ ciy discuter ba di ci mel ni ku ciy xeex ok léegi man nag tombé na sama maafe pare ma ànd ceeg ren herbe épice mu àndil mu guubu amul fenn gis ngeen sama couleur yu ñànkatan ren herbe épice légume bi laa ci def waaw légume bi baax na ci euh, macaroni neex na ci vermicelle neex na ci couscous ak ñànkatan maa la wax lii ba pare day safal léegi waaw moom moom moom cinq en un la laa ko woobee sama sauce pare na saf na sàpp kanja diw gi tuuti la xelli ma koy yakkal nag sama suiveur yëpp waaw koñ menu du jour baa ngi noonu mën na nekk añu samedi mën na nekk añu dimanche waaw koñ maa fi ginaar na fa jaar ngeen jël seen épice ren heure bi bis mu saf sap su ko defee ñu joxante rendez-vous comme ni ñu koy defee saa su nekk jël leen numéro yu baax yi et puis woote ñu livrer leen fépp fu ngeen nekk ci Dakar wala ngeen déplacé wu dem Elidia Touba pour mën a jënd seen ren heure bi épice waa Europe nag yéen continuer leen ci site internet bi def seen ay commande ñu livrer leen via colis posto waaw koy jaajëfal naa leen je vous souhaite une très bonne dégustation et juma bu barak waaw koy comme ajjuma la ñuy publier aywa jaajëfal naa leen merci beaucoup. ah sama gars yi xam ngeen ni vendredi ren herbe épice moo aaye waaw kay fii ci Alphie